gis nañu ne Sénégal ñoom seen bopp opposition bi dañu gis ne bor yi daa bari te bor yi dafa élevé mais nag te dëkk moom ñoom dañu xam ne dëkk yi nga xam ne ñoo dëkk yi gën a mag ci réew mag ci àddina bi sax dañu yor ay bor yoo xamante ne pour développer seen dëkk la li bon mooy leb di ko yàq mais leb boo xamante ne ci lu mu jëm ci tali leb boo xam ne tey ci lu mu jëm ci ay école leb boo xam ne lu mu jëm ci wàllu faj ci wàllu santé leb boo xam ne lu mu jëm ci dimbale askan bi am naa yaakaar ne gis ngeen teer bii nga xamante ne war na commencé nga xamantene ne gis ngeen circulation Dakar bi nga xamne mo fi nek ngeen xamantene ne bi tay nek na lo xamne soulagement la ci population bi parce que da nga nan joge jógee way pour dugg Dakar rek di nga def ñaari waxtu bo deful ndànk nga joge Mbour bo def 30 20 minutes ci autoroute bi nga dugg Dakar war fe def 1 heure temps 2 heures temps sunu président xalaat bo mu xamne li bu continuer ken dotul xëy 8 heures nit ñi danañ xëy midi. tay loi bi nga xamantene ne wate nañ ko majorité wate ko Sénégal mo ci gis bopam réew mo ci stabilité te jappalen ne. réew mu am guerre kenn du lebal xaalis réew mu wóor kenn du lebal xaalis réew moo xamante ne nii xeex wala amul jàmm amul démocratie amul stabilité kenn du ko lebal kon tey yow mi nga xamante ne yow yaay doomu aadama jàpp ko sa bopp ndax tey soxla nga ñu lebal la xaalis nga tabax sa kër wala boog nga tabax li nga xamante ne nii mooy lu lay jëriñ ëllëg gis ngeen ñuy leb di liggéey di jaay di def leneen kon leb tey dana tax sa nit riche yi dana tax pays riche dana tax ñeneen riche parce que foo ko defee fi nga ko war a def am naa yaakaar ne di nga ci gagné fruit parce que loo jiw da nga euh, bor daal da nga xam da nga ko da nga koo jiw te bu góob jotee di nga ko góob njëriñ feeñ si